mbokk yi tey thème bi cee waxtaan ak yéen muy thème bu am solo di benn phénomène boo xam dañ koo xewal muy li xamante ne moom mooy topp kaa wala di waxtaan li nga xamante ne moom mooy ay kaa dañ koy faral di déggee kaa am na walla ñun ñoo xam ne moom dañuy faral di daje saa suñu dajee lu ñuy waxtaane mooy luy kaa bi tey walla ñu naan dañuy topp kaa maanaam bu mbir amee ñu topp ko wala bu ñu dajalee ñuy wax luy kaa bi tey maanaam tey lan moo xew am lu ñu war a waxtaane te mu am ay mbir yoo xam ne lu ñu war a lijjanti la ñoom ñooña ñooñu faral waxtaane kaa yi sax ñoom ñu ëpp ay kaa fuuf ci seeni kër ñu bëgg a waxtaanee loolu mbokk yi di wax ndax jullit war na am temps wu toog naan day topp kaa wala muy toog naan lan mooy kaa bi ndax jullit war naa taxawee noonu incha allah tey ci euh, loolu lañu ñu seedaa di waxtaan ak ñu ko ñaan borom ko dëgëral bu baax a baax seen bi mashkura alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa jullit yi mbokki groupe bi ñu ngi jël nuyoo bi ak ziyaar bi yépp di ko teg ci loxo Sayda Mariam di ko séddaleloo bi ci mboolem kilifa yi nekk ci biir groupe bi waaye mboolem soxna yi nekk ci groupe bi ak mboolem fu jullit yi nekk rek yal ne yàlla suñu borom defal leen kàddu gi fekk leen ci jàmm yàlla mi borom jàmm mu dolli ñu jàmm ñi ngi jéglu bu baax ci émission bi géj bi mu gëj a am waaye di suñu coobare comme ni ko sayda waxe eh, di ñaan yàlla rek mu may ñu ñuy fekkee lu bari te bu ñu ko fekkee tal ko bu ñu ko talee man ca dara bu ñu ca manee dara yal na ko yàlla baaxal barkeel ko ba kenn ku ne man caa jariñu tey nag mu ñëw ci lu am solo ñu delluwaat ci suñu dundiinu société bi di ci dégg kàddu yoo xam ne jullit yaa ngi ci biir waaye ñu war a seet kàddu yooyu nga xam ne ab xewtu la bu ñu xewal te depuis ba ñu ko xewalee ba léegi muy kaa lu ñuy wax kaa nañ topp kaa bi kaa am na tey loolu kaa la macha allah tabarakallah ñu xool ne kaa moom yi ak nañ topp kaa be kaa am na ba mu amee ba léegi dafa mel ne problème yooyu ndax kaa bu ñu ko waxee mooy kaa problème waaw mbir mu am nañ leen ko topp topp gi mooy nañ leen ko topp ba xam kaa bi fu muy mujje mooy mbir mi fu muy mujje bu ñu waxee benn affaire boo xam ne bu doy waar la nit a ko def wala ak moroomi jullitam ñu ne yii loolu moom kaala nañ leen ko waxtaane te fekk ne am na ci loo xam ne du suñu cër am na ci tamit loo xam ne tardement la ci yow jullit bu jigéen bi wala bu góor bi ndax ñëpp koy topp nag góor ñi dañuy topp kaay jigéen ñi di ko topp boo dee seet nag ñi ñi topp kaa mooy jigéen ñi waaye ñi gën a def kaa yi mooy góor ñi rek noonu lañ ko mën a séddale waaye kaa boobu yi ndax topp ko yow jullit bu jigéen bi ndax loolu dina la may ci sa eh, jaamu suñu borom subhanahu wa ndax lépp du doon li nga xamante ne bi day mujj ci ay bakkaar ndax li nga xam ne boo ko toppee ndax sa diine may na la loola ndax kaa moom saa boo ko toppee na la leer na mbirum jàmbur la moo xam ne yaay dem di top diko di kotop ba gis kaaba ñu wax ko borom bu ko defé la cey juddoo lepp ci problème mu ñëwaat ci ki nga xam ne mom ko moom te ñoo bu fekkente ne borom kër la go ma sha allah dafa dem di am keneen ku muy waxal bu ko kenn toqee ci noppam ne yi ki da yow jabaram du wujje lu wujju yi ki de bu ko li da bu ko jabaram déggé xomu fu mu jëm day yaq ñu ñëw topp kaaboo ba am ca yu ñu mën a won kooka ba mu gëm ko ñu ñëw jox ko kaa bi kooku mooy topp nañ kaa bi ba mu sës ba xam lam nañ ko war a doxale ba ñëw teg ko ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk benn kër dara musul dox seen diggante bu ko defee diggante boobee yàqu ndax la koy yàq mooy dafa doonul loo xam ne lu baax la luy jur lu baax la déedéet mais kaa ñu topp jurul lu baax mu doon nag manifestation ak kaddu goo xam ne eh, ñu baree bari ci nit ñi ñu ngi koy wax di ko dund mbokki jullit yi ñu war a bàyyi ne lim ñu lim ñu tardeel ci ay temps ak a bari li mu jël ci suñuy waxtu yu ñu waroon a def ci njàngum alquran wala yu ñu waroon def ci suñu njaboot wala yu ñu waroon a def ci suñu kër indil nañu tardement yu bari yoo xamante ne mi ngi feeñ ci biir kër yi di feeñ ci njaboot gi di feeñ ci digganteeg borom kër yi. lutax moy da ngay xey di top ka ci sa portable sa borom kër dem liggéey ngay top ka bam fekkat la ci kaw lal bi góor ñu bari di len fëgg buntu fekkal dorop ba nga fa bàyyi won mom nga fay fekkat ka top di top ka ba du sangu sax mbubb ma nga ko bàyyee won mom la fay tegaat mbokki julli di njabotam sax sang gim len wara sang sax defu ko fa la ko borom kër fekkat koku ndox ma fam mu ak kaas ba fofu la ko fekkat top ndax ka lu arranger julit bi la ñenn ci ñun ñi ne déedéet ndax topp kaa amul sens ndax li ngay topp ndegam boo ko toppee ba pare mën naa indi problème ca ñenn ca ña nga xam ne ca ñoom la jëmoon te yëguñu ko loola du lu baax ndax jullit bi saa bu jëlee tànkam daf ko war a teg ci luy jariñ lu koy jariñ ak luy jariñ mbokki jullitam mbokki yi kaayoo yi nekk loo xam ne depuis bañ ko dugalee ci société bi ba léegi mu ngi tàqale ay boroom kër ak soxna mu ngi tàqale ñaar ñu bokk borom kër mi ngi indi ay provocation yoo xamante ne nit ak nit sax dëkkuñu kër sax ñoo bokk borom kër waaye mën na leen dajale bañ def ñaaw téef yoo xam ne ñëpp koy dégg mi ngi yàq diggante doom ak ndeyam mi ngi xajjale di tas kër yoo xam ne da koy tas diggante yaay ak doomam dem bay tas diggante baay ak doomam ndax lan loolu yépp ci dund société bi lañ ko teg mbokk yi ñu seet na terme yooyu ñuy tàbbal ci ñan la sosoo ñooña lañuy dund ak ñun li ñuy dund bokkuñu moo tax yu baree bari dañ ci yuubaale waaye dem ba suñu njaboot di ca dund di ko kafe di ko def ba far dugg nag ca la nga xamante ne bii loolu du seen cër ndax nit ki boo ñaawee ci moom njortu ni yii yow di diw gis naa ko démb mu taxaw ci mbedd mi moom ak diw ak diw mu ne ko yii yow bu subaa ñu wax ci kaa boobu loolu kaa la la koy njëkk wax mu ne ko bu subaa bu subaa dañuy dajewaat toppaat ko ba xam loola ñëw indiwaat ko ca ka nga xam ne bu ko déggee problème am ñu doo ñëw loola kon nekkul loo xam ne lu rafet la lu ñu war a roy di ko dund ci biir société bi mbokki soxna yi borom kër yi kaay nag nekk lu bari ñi di ko wax kaa bi te tamit nit ñi di ko def muy dafa dem ba li ñuy wax kóolute am ñenn ñoo xamante ne bi tàqalikoo na ci seen diggante muy jabar ak borom kër am na ñaari couple yu bokk benn ni benn kër wóolootuñ ci seen biir ndax kaa boobee ñu mas a topp ba teg ci seen bët lum ne ko baal naa la baal naa la wala loola yëpp fàtte naa ko du tee saa su nekk ma ngi koy fàttaliku ci wor gi nga xamante ne bii wor nga ko ndax kaa saa bu ñu ko toppee rek mën naa indi ak wore wala mu indi problème loolu mooy kaa kon mbokki jullit ñu war a dem jël leneen jëfandikoo ko lu dul di topp yooyu di indi ay problème ndax nit lu mu yëgul rek du ko amal problème waaye lu mu xës ba yëg nag problème am la bu ñu xoolee ci suñu mbokki boroom kër yi nga xam ne ñenn ci ñoom ak njub dañuy làqatu waaye dafa am jigéen ñu tar ñu nekk ci biir ñoom it mën nañoo def li ngay wax lii indi mbir mi ci ñoom lay soqee ko ndax am na benn boroom kër bu nee dafa bëgg a takk ñaareel waaye soxnaam mayi ko ko ci benn côté mbokki soxna yooyu tamit est-ce ñoom duñu xoolaat seen bopp xam ne loolu du ci góor gi de waaye ci ci ci suñ borom subhanahu wa taala waaye góor gi moom ndax du xool boppam ci noonu mu koy doxalee te yàlla mayi ko ko muy ña génn di diggante ak ñeneen di ko nëbb seen soxna yi ña nga dem sax ba takk leen te waxuñu ko seeni soxna mbokki jullit yi muy mbir yu doy waar yoo xam ne mu ngi xew ci biir kooku nag bu ca kenn karfatee dara te xam ne kooku musu koo bëgg loolu mooy kaa bi gën a mag ci kaa yi ñu ne nag diw nag waaw kay nag dañ doon wut kaa am nañ ko nañ fexe ni ci nit doy di jote moo wax lii ak wax lii def naa ko ci vocal kii ne ko filme naa ko bu ñu la woo mooy dil yi nga xam ne nit ñi dañ koy def ñu la koy teg ne la danga ñuy fay nangam wala ñuy tasaare ko ñu naan ñi naan kaa contacté kaa yooyu ñu ngi ko jële woon ci feebar bi fi duggoon subhanallah ñu naan am nañ nangami kaa yooyu noonu ci lañ ko jëlee kaa mooy li nga xam ne problème la ñoom ñu firee ko nag léegi li nit ñi di dund nag te di ko nëbbu nga xam ne bu ñu ko tasaare dina am lu mu def ñoom ñu tuddee ko kaa di ko topp action yi mbokk yi mu am nag jur nag ñàkk njariñ gu baree baree bari gu ñu seetlu ci société bi mu jur tamit tarde temps bu bari bu ñu waroon a def ci suñu diine te defuñu ko ci mu jur taqalikoo goo xam ne am na ci ñoo xam ne ñu taqaloo ba kera ñuy fekkante foofa mu jur nag ak sàggante ci njaboot gi yar bi mu jur nag ak ñaaw njort ci xale yi nga xam ne ñi ngi judd ñi ngi ñi ngi commencé mesure ñoom di dugg ci seen àdduna ñoom problème yooyu ñuy gis di ko commencé di ko régler di ko dab yi di ko gëstu ñu defee ne loolu daa bokk ci dund gi kooku bis bu demee ba war a am boroom kër ndax dina ko wóolu xel mépp kaa lay doon ñaaw njort goge mu doon dund di ko gis ñu naan nañ topp kaa bi mu bokk ca ñay topp ba far gis te loo xamante ne naka su dul noona la kooka kalma moom ku ko takkit da nga takk koo xam ne ko xam ku daa dund ci kaa te kaa amul benn njariñ bokki jullit yi jullit yi dañoo war a tal leneen lu dul di topp ay action ndax mbir moo gis mu am na la leer nag ka ka amal kooka la concerné waaye yow sa yoon nekku ca ndax bu dee góor goo xamante ne bii moom macha allah tabaarakallah ñu ngi koy séentoo feneen moom mu topp ci banay jigéen yi di am ñu muy woo am heure bi mu leen di woo seeni kàddu di dem di dikk muy neexal aka bàyyeel te moom moo xam la ca yàlla wax ba pare mu di ko def kooku yow du sa kaa du sa problème problème ki koy dund la dañoo mel ne nag dañoo génn nag li nga xam ne mooy diiney lislaam bi nag ndax am na ci yu bari yoo xamante ne bii kuy dund diine dëgg-dëgg ku jàng dëgg li nga xam ne mooy jikkoy alxuraan ak sunna yooyu yooyu doo ci bokk waaye dañoo dem ba di ca fortaatu dem bay ànd ak ñay toog ca keppaar yooyee dem ba di ca bokk dem bay def sax lu mel noonu dem ba far leen nuru dem bay jëf la ñuy jëf bokki julli di ñu arrière ci loolu nga xam ne du suñu cër ndax lépp loo xam day jaxase ay xol di tàqale ay diggante loolu yàlla bëgg ko suñu yonent digaluñu ko du jukkoy jullit bu jigéen mbaa bu góor te li koy waral mooy li nga xam ne rek mooy li ñu wax sànq bu ko defee ñun bu dee ñun ci jigéen ñi bu ñu ñëwee day am loo xam ne kaa bu mag lay doon lañ koy tudde ca la ñuy débat di ko jaarale ci réseaux sociaux yi kenn ku nekk di ca wax loo xam ne sax yow xamoo ca dara dañ laa nettali dong muy nekk ay bakkaar ndax tegoo ci sa bët yaa ngi bakkaaru gis ngeen lum kaabu kaabu génn rek bakkaar ya dina bari ndaxte kenn koy ne deen ko paasante ku ca dégg da am loo ca sànni moo tax ki nga xam te nii dafa ñëw ñu ne dañ koo takkaloon ñaareel waaye biñ biñ bi muy ñëw di ko nuyu si waxuñu ko bi muy ñëw di ko nuyu si waxuñu ko boobu bis boobu mu koy nuyu si aawa baa ngi fóot fóot ba yére yi tooy xepp moom ba mu xëyee ba ni deux jote mi ngi fóot pareegu bi mu siggee ci selali bi rek ci la seen oto yi gaare seet baa ngi mel ne macha allah tabaarakallah ndekete yoo combine bi ci biir kër gi la dafa am ñu amul jotam biñ ko ko waxee moom wax nañ ko ko ne ko yow mii dafa mel ne dañoo dégg ne sa njëkk yi li ñuy dugg ak génn nii am na luy xew ñow ne ko diw ba naa mu ne ko kaa am na mu ko man na ngeen ma dimbali seen kaa yooyu man taluma ko man sama fóot meeg sama kër gi balaa ma cee pare man topp may kaa ku yaa xam waaye man sama yoon nekku wax la dëgg kooka gis nga suñ ko bàyyi woon muy fóot fóotam ñoom tamit ñiy def seen yëpp bis bu bu ñëwee amul benn problème waaye ka ko waxoon loola dafa mujj nag fa muy mujj moo dul neex ndax da koy gëm te lépp lu mu koy waxati da koy gëm ndax action boobu am te fekk na benn yoon boobu dong la waaye ka loolee mu ko waxtaan loola ñëwoon na amoon na bi mu siggee gis oto yi gaara muy ñetti oto kooku sañ sa ba mu mel ak ñi mu àndal ñoo fekk ko muy fu waaye ku la neena nima sigge ci pan yi muy sit ma do wer noonu sama yere yi toy mom la len taxawé ci digg ëtt bi ñu taxaw sañ sama mel nu len neex ma di len nuyu par benn samay haqqata ay commencé kaf ak ñom mba yene gi ci jàmm mbaa yegg si ci jall ci len ci ñepp di ma ye gore yi ñepp ngi taxaw di ma kenn ku ne nak di mat ñaw ni sax la baaxe waaye kafam ak reem indi ndox mu seddam ci biteelam yi yam ñew def ci palaat ñew may len tek seeni kanet nee na benn siis laa jël te ko ci buntu saal bi toog di waxtaan ak ñoom ndax sama yére yi tooy ñu indi macha allah kenn ku nekk ñëw ñu toog waxtaan waxtaan sa rakkal ngi lay nuyu ñu defante yooyu ñuy def fay naa ko yal na yàlla barkeel ñaanalante kaf ree waaye meer bi ñu àndal ci biir mi ngi xool ki nga xam ne moom lañ fekk moom li ko gën a naqari mooy kii lu tax waxuñu ko ne rakkam da koy nuyu si bañ fekkee ko nii ndax kum doon yow da nga bëgg sa doom def yi loolu topp action ba nag. ba xam kii fan lay mujjee loolu mooy kaa jigéen bi loolu bu ñu ko amee tey bu subaa loolu mooy doon kaa bi moom ci suba gi te yooyu yëpp day indi ay féewalay xol indi ñàkk a juboo ndax kooku noonu mu dugg see ci kër gi mooy wax nañ ko wane wax ki mu war a fekk si waneewuñ ko ko jàngaluñ ko ne kii sa mag la toppal ci moom waxuñu ko tamit ne war nañ ko koo wax xanaa ab xeex bu mat sëkk la fi fekk moo tax bi muy ñëw arme boobu la indaale ñoom ñi ko def nag xamnañ na xalé bi du tok ci kër gu maggé mom du fi nango tok waye ma ngay tok dem and ak jëkëram nuyé seen ben appartement tok ci waaye ba muy ay bagaasam di ñibbi ci kër gi solo li dalam ñi xex moom ak la ko fa yobbu diko ko ak borom kër ba ñu kon xam ngeen ne nit ku nekk la ngay def budul dul naturel bokul ci sa dundu amo tam yalla mo lay fayal bopom bu doon day nekk ci biir daw di di di sol ay wala téesante ba lii ngeen ma def nangam ak nangam waawaa lii ngeen ma bëggoon da ngeen ma bëggoon a troxal sama kanamu nawle bi xam naa li yooyu yëpp fekk ko ca moom moom daal foofa la toog yónnee ndoxam ci ay ndoxi butéeyam teg ay kanetam nuyoog ñoom jàmm sante xëcc siisam ñuy waxtaan ba mu dem macha allah mu yeggale ay ñi ñetti sarbetam yu ko deseeloon nee na xaw ma mbàjj daal di weer bale sama ëtt ba mu set ma sangu ji ba set wecci mbokk yi toog ci sama néeg kontaan lool nag ndax li tax mooy man mënoon naa doxale neneen affaire bi ñëw neneen waaye xale bi loolu la gis ci man dem na lañ ko nettali nag muy kaaman loola topp ma ko ndax man óoma jotub kaaman ndax du ma ko sax lijjanti waaye fii ku bàyyi sa kaasa gis ku la ko toppal léegi topp yooyu ban njëriñ la am mooy tàqale nit ñi moo indi sëy yi naqar yi moo tax tas bi du bari moo tax borom kër yi kenn ku nekk di nekk ca leneen kenn ku ne ngay ñaaw njort ku ne nga rabb sam xel kenn ku ne nga jël bàkkaar di ko teg moroomam ñi ngi jël ay baat di ko wax seeni moroom te yow dara leeru la ca népp nekk ay bàkkaar ëllëg yowmal xiyaam ndax ku wax li mu xamul tuumaal doomu aadama pare teg ko ci réseaux sociaux yi yow boo demee bàkkaar boobu kenn du la ko baal est moo ko def dalaa leer dañ ne la rek topp nañ ko kon yooyu war nañ koo bàyyi xel def na lu am jom wane ne ne tamit nit kese la du lu ñuy réll réll du lu ñuy téesante du lu ñuy topp du lu ñuy teg ci làmmiñu doomu aadama yi ñu def ko kaa déedéet daf ko lijjantil boppam loolu yàgg na fi te ay topp kaa amu fi kon ku koy topp da am da am jot muy jotu fox jotu perte sa temps jotu utal sa bopp ay ay bakkaar jotu jëli xol di ko féewale kon yooyu mooy ñi nga xam ne ñu ngi topp loolu ndax loolu saa boo ko toppee ba pare rek du am résultat mbokki jullit yi suñu mbokk mi jàngal ñu ci lu lu rëy muy ak dal ci lépp loo gis luñ mën di topp ba indi la ko ànd la ko dal ba xam noona la demee waaye déedéet buñ la sànnee vocal yi mbaa ñu téléphone la mbaa ñu wax la sa jëkkër dikk nga tàccu ko fa nga nekkoon ba heure bii nang fa dem dégg naa ne nangam ak nangam kër diw ak diw dañ koo topp de yooyu ñuy wax yépp dëgg lay doon sëriñ bi bëggul woon soxna si xam ko bam ciy wax baat yu ko leer nañ ñi waaye buñ ca paree diggante man na caa tàqalikoo yow nga ne loolu lu baax la yal lañ ci yàlla musal képp ku ci nekk nga tegg ci sa tànk macha allah tabaarakallah bu ñu ñëwee ci dund gi nga xam ne nëbbante yi ñàkk a wóolante suñu bopp gi loolu bokk na ci liy indi yooyu ñuy topp ndax nit ki bu fekkee dafa am lu luñ koy tere mu di ko nëbb macha allah fii góor ñi bari ñu ngi marché ki jigéen ñoo xam ne duñ seeni soxna ñenn ci ñoom waaye dañ koy nëbb seeni soxna waaye soxna ya tamit ñoo mel melokaan woo xam ne ci ñàkk a mën a bokk ñu dem di ko continuer ci di banneexu ci loo xamante ni dafa xaraam am na ñoo xam ne sëyuñu comme ni góor ñàkkee mën a yor jabaram am na ji góor ñoo xam ne yoruñu seeni jabar ña leen di sax xamuñu leen xamuñu ci bàkkaar lañ koy amee wala ci beneen façon bi lañ koy amee jéemuñoo contrôler loolu ndax jigéen bu fekkee da nga ko delloo responsabilité yi kër gi te kër gi di dox te jigéen néew doole loolu te amoo loo ciy gëstu yow kon xamal ne yow yaa ngi ci biir loolu yow yow yow yow bu rëy bi nga nag te yaa ngi ci leneen mbokki jullit yi nit ki liy xew ci këram da koo war a xam waaye kooka mooy kares këram ba kenn utiwul leneen lu dul sax mbokki borom kër yi lan moo tax nit ki bu demee ba bëgg dara doon borom kër mënta toog mu waxtaan ak jigéen xam ngeen lu tax mooy genre yi ñuy dund fi ne koo xool ma ngay xool jëkkëram ca kaw ba xam kii ndax deful dara kenn ku nekk ngi ñaaw njort ci ki nga dëkkal te loolu moo koy waral te loolu du yëfi jullit ñaaw njort ci sa mbokku jullit loolu du yëfi jullit loolu du yëfu jullit jël nit tàqala leen xam ne lii xel lii ma topp de bis bu ko ñaar ñuy déggee seen seen neexaayu sëy bii day deñ dañuy tàqali ko nga dem jël ko tegal leen ko bis boobu nga tàqale leen seytaane kontaan ndax moom ki gën a liggéey ci ak équipe mooy ki tàqale nit ak nit kooku moom moo jël première yàlla nañ ci yàlla musal diggante boo xamante ne ñëpp jortoon ne macha allah ñëpp di leen ñaanal yàlla suñ borom la fa leen cat yow nga ñëw tas boobu diggante te bari na fi muy diggante yi kenn science bi woon na ñi ñaari couple yi dinañ mas a mel nii ñu mel noonu bu ñu ñëwaatee ci ñooñu da ngay dégg nag yeneen ya koy dindi yay dindi mbir ma nga xam ne bu problème ba ñëwee na bañ tas ko ñu commencé jafe-jafe yi ñu wëlbatikuwaat na di leen digal ñu demaat nag ci maaman yi loolu ba tey mooy kaabu mag bi yow diw ba ma ca demee ba ma nangam ak nangam man de amna jam sama appartement lañ ma wutal yi luma wax lay wax togal fofu rek yow do top ka bi gis nga lamu lay indil génn ci sa diin da nga tok weer ak fukki fan yo xam bo boo jullee borom du ko nangu wa weer ak fukki fan yo yi kula wax ne do suba ak yow loolu nga top ba féewale ñaari nit ndax bañu ko déggee seen problème kër nga yëngu koko tak day bagasam dem nga xey faatu te ña daggante yow yaa tax ñu dem ndax topp kaa bi ndax loolu yëfi jullit la te jigéen ñi ñenn ci jigéen dañ cee sawar ndax duñu sëy duñ bàyyi ñuy sëy am na jigéen ñoo xam ne ba ñu toogee ba léegi jóguñ muñ rek la ñuy def mu ñëw seen borom kër lu ñëw yàlla may na leen xol buñ ko supporté waaye ñi yàlla mayul xol buñ ko supporté nag ñooy équipe bu topp kaa kon képp kuy jigéen tey sëy ci kër moytul ma ñoo ñii yooyu genre xarit ak yooyu genre àndandoo dañ lay takkale ak sa boroom kër naqaral sa kër mbaa ñu tasal la sa kër nga dem ca say këri waajur mbaa sa këri càmmiñ xat lool àdduna métti lool ci yow nga jóg sax bay dem di mindaanu di ko di yor sa bopp ak sa njaboot te loola yépp dégg rek àndoo kuk dal amoo loo cay seet lu dul leen daal di taxaw ne lii muy dëgg na mu teg ca waaye loo muñal muñal nit ki ñu la benn erreur nga war a ànd ak koog dal moom ba xam koo kii ko def bu ko déggee ca lay sax jikkoom la naturel wala loola da koo jëloon rek ndax benn affaire déedéet dañuy daal di tas affaire ya mu jeex mbokk yi jikko bu mel noonu yàq na lu baree bari tey am na ñu daa seetaan loo xamante ne ñu koy seetaan fi mu ne nii daaw ñu ko xool de waaye ñooy téléphonante na la diw seetaanal filmu sàngam danga ci jële yow loo xam ne nii da xam ne diw mii nekk ak yow ci kër gi loolu rek ci la nekk boo ko dee seetaan da ngay comprendre man góor du ma yab gis nga kooku boroom kër bi da koo ragal respecté ko rik ko la def dem ci maam yi am lu mu def waaye gis nga fi ne nii lu mu wax lay def lu mu tere mu bàyyi ñu nga topp loola te daal di koy seetaan gëm na lii nag mooy li ma noppal ndax man damaa sonn ci góor gi fekk na yaa ngi ci loo xam ne lu naqari muy sa merum borom subhanahu wa taala mbokk yi ndax àdduna jar na ngay jël yenn ci mbiri doomi aadama yi di ko feeñal yow ngir bëgg rek ak tàqalikoo akuk ñagas-ñagas akuk ñaawteef ba tey jar na ñi ngi nettalante di seetaan mooy nit ku def ñaawteef ci borom këram ku jub di xeex ak borom këram mbaa ku dóor soxnaam rey ko ñu génnee ko daal di koy lancé sànni ko ci biir réseaux sociaux yi ñëpp jot ci kenn ku ne di débat kenn ku ne naan kaabaa te loolu yëpp nekk loo xamante ne benn loo cay am lu am njariñ amu ca xanaa loraange ndax kooko mënoon nañ kaa suturaal ba foofee ñu ko dóoree mu yem fa waaye dóor nañ ko ba dagg nopp ba boo légee buñ gis geneen góor gu ko seetaan te moom am arrière moom xel mi dafa arrière moom lay daan góor gi très bien lii mu ko def nii mooy yoon lu tax muy def nanga way jigéen ji nga xam ne dafa ñëw tàngal lu mel ne diw mbaa ndox sotti ko boroom këram ñu teg ko ci réseaux sociaux yi tem bi bu ñu nettalee li mu def dañ naan moo yey sax dina faju rek ba wér waaye góor gi méritoo na loolu toog di ko muñal ba mu am mu dem di la def lii di la abandonné boo ko jotee war nga koom am nañ xal ñoo xam ne seeni xalaat foofa la toll waaye bu ko séddalee am na koo xam ne moom ma nga am lu ko naqari ku raw kooku fuuf waaye bu gisee kooka danaan waaw kay naa def na kii ndegam am na ku ko def te lu ko jote la ca loola tasaare kon ñi nga xam ne dañoo yàttamtee tasaare ñaawteef ba ñépp di ci débat kenn ku nekk di ca wax loo xam ak loo xamul wala nga cay wax sax te ëpp ci ñoom di ci wax lu ëpp ci ñoom ci li ñuy wax mooy loo xamul duñ nettali mukk lu ñu fekkee waaye diwane ma ak maane waaye duñ na maa fekke te ab jullit buy wax day fekke mbokk yi nit ki dafay jël ab ojoom ojo ci koo xam ne xaritam la xarit boobee su ko bëggee bis bu ko waree mu génnee ojo ba tasaare ko am na ci koo xamante ne boroom këram la mu nekk ci kër gi ñuy ñaari soxna waaye mu ayee ci ki mu gën a bëgg ndeysaan di ñibbi filme ko seen toogaay ci biir néeg bi biir néeg bi laa wax ak seeni melokaan te kooku wujjëm la woon ñoo bokkoon nekk ci kër gi waaye biñ ko laajee lu tax nga def loolu ba mu nekk kaa ci nii mooy def na sama boroom kër dafa ëppoon cofeel ci moom bëggoon ko lool fi mu ko tegit man yëg naa ne bañu ma de mais fi mu ko teg teguma fa waaye yow jigéen ji lu tax yow ba ngay seet nga seet fa gën a ñaaw lu tax seetoo kooku nu mu def ko boroom këram teg ko foofu te amawu ko ci sëriñ ndax du takk du naan mais lu mu liggéey la moo tax buñ nee kii dafa liggéey boroom këram ñu ne waaw da koo liggéey moom ci boppam ñaqam en tant que jëfi jigéen ci biir këram la ko defee ba jàpp ba point faible boroom këram loola nag nekk mbir nag ci nit ñi nag tasaare ko yaay papa ji may doom ji jigéen ji taaw ku mag mu may ko portaabal bi ndekete yoo vidéo baa ci biir waaye mere na ko mer moo xam ne fan lay jaar ba yàq ko rek ba mu ba mu wàcc ko te fekk na foofu du jaarukaay ba yow yaa ngi ubbi beneen bunt boo xam ne yow bu paree yow moom yi yéene jooju nga yéene jigéen ji yow yaa cay mujj yow subhanallah mu ñëw ne ko ah am yaay portable bi sama papa dee ma ko may waaye yi ci nekk de moom ah man sama tante la ci gis mu jël xol ba neex mu daal wiccax bob bi ne waaw kay ki tok ci sama bob bi tok ci sama xol bi nangu sama jëkkër gi ne ko panget xana suma ko tassare le li nak dina ko bax suma tassare li dina ko ba ndax mo koy def ci sama portable borom kër gi yàqute ak gi bëgg raw waaye dina xam ne maa daal ne ko ndax ci seen groupe famille borom kër be njëkk guru dugg ci biir groupe famille bi ne leen lii metti na lool waaye na leen leer ne du diw diw la de ku ko gis da xam ne diw la waaye sama soxna la maa ko filmé bëggoon ko yóbbaale portable bi maa ko may sama doom xam naa dafa tijj bu waat ba waaye lii yaayam la waaye bis na tey may naa ko baatam ak ne ko ñëpp déggandoo comme nii mu ko defee ci biir groupe bi noonu laa koy tegale fii may baatam ngi mu ñëw yóbbaale ko ba ma ko ciy def nag avertise na ma ba tàyyi ndax xam na ki muy defanteel waaye man maa ne ko ñeme wutal laal sama portable waaye fàtte naa ne boîte boobu mi ngi ci biir portable bi ma tëj te bi ma dellu siwaatee ci année boobu laa ko ko may kon lii mu def nii dafa am lum ci jublu waaye ci moom lay këppwaat day génn sama kër tey du fa fanaan na ko ñëpp effacé ñëpp effacé ko waaye ñëpp gis nañ kooka di ko jooy di ko jooy ba feebar nit ku bari kersa la te wax na ko ay yoon yoon borom këram moo tax nit ki tamit loo mën a bëgg ci sa jabar ak loo bëgg-bëgg sa kaddu moytul yooyu ay jàkkaarloog eh, bësal barab sàngam ñu dégganteeg damal sañ may xool ak waaw loo sori sori rek am na yoo xam ne da nga koo war a muñ ba ñëw ndax yow loola boo ko gisee dëgg sax ak fitna dong la lay indil tey mu nekk ci boîte réseau sociaux yi am ku la sib sone toll ne wala portable ba wadd mu publicité ko nga daal di yàqu te ñooñee am na ñoo xam duñu xam na yow nit ku yiw nga ñu sës ca yow rek ñooy xam ne lii sa jëkkër nga ko seqaloon waaye ñu koy gis publiquement ñooñu duñ xam mukk dañ naan kii moom ku doy waar la lii lii ku ko mën a def subhanallah kon mbokki julli di ñu bàyyi xel ci portaabal yi fi indi yi ci la ñuy toppante lii ñu indi tey muy émission bii ñu tuddee naan topp kaa topp kaa problème rek lim fi indi yépp wax nañ ko ci biir message yi kon yal nañu yàlla sàmm te may ñu jikkoy alquran ak sunna mbokk yi ñu war a wëlbatiku yar suñu doom yi ci jikkoy alquran ak sunna waaye ñun ñu yaru ñun ñun ñun ñun ñi yarkat yu mag yi nañ leen yaru ci yooyu ñuy def yaru ci yooyu ñuy topp yaru ci yooyu ñuy indi yaru ci yéene yi selle yi yu sellul yi nga xam ne ñu ngi koy doxal te leen lu nekk di këppaag ci sa kaw ñu xam lu waay def sa bopp du kenn kon yàlla nañu yàlla may ñi dellu si suñuy xel ci lool yi nga xam ne moom la ñuy defante dem ba di ko tasaare ba illaa yow mi diin say sët sax bu ñu bësee réseaux sociaux yi fekk ko fa yàlla nañ ci yàlla musal te loolu yépp ay mer di ko def yu ñàkk xorom ay jëkkër ak jabar ay sama place bopp dama kaa perte ak dañ maa abandonné kii su ko mënoon a def nangama tey da nga dem ba doon mag nga ngi toog tey ji ay sëtam di dal ci kawam di daw di dal ci kawam ma ngay rëcc lu mu doon jëflante kam nekkaloon ci biir kër gi imma faatu na bàyyi ko fa te leer na ko ne bàkkaar bi mu defoon mi ngi fii ci àdduna te dina ko fekk ëllëg yowmal xiyaama ñu lijjanti ko ñoom ñaar te bëggatul mu ànd ak moom yowmal xiyaama waaye tam ko doon defal kon nañ leen tal suñu jaamu yàlla gi ndax matala nañ suñuy julli suñu yaram wi ndax soppeeku ci ñun jotul man mi nga xam ne maa nekkoon di leeral sama kanam di poose ay wee di defi épilage nekk beneen nit di guddal samay mees di wiccaxu ndax duma dem ba dëpp te xam ne dëpp jot na kan moo xam danañ yew wala dee dañ koy ñaan borom mbir moom rek moo ko xam mbokki julli di àdduna nekk lu gàtt boo dee fëgg sa dënd na maa man maa xam maa maay def waaye am na bis doo man doo xam te doo jëf kenn rek kay joxe ndigalam muy buur bi subhanahu wa taala kon nañ leen bàyyi xel ci liy kaf képp ko xam ne déggati nga lu mel nii yiiral yow bul bokk ca ñëy séddale mbir ma bañ koy topp boo déggee tamit lu la nettali am na la ko dal ba seet ba xam kii sa borom kër ko def dalal ci de ca kaddu yañ la wax gisuñu dañ laa wax bu fekkee da ngaa topp ba gis nag moom am sa firnde yu leer macha allah doonal soxna defal sa devoir ci biir kër gi toogal nga waxtaan ak sa borom kër bu werantee nga ne ko lii de laa gis te suma ma kenn du ko gis man ak yow lay doon te yow waxoo ma lii lii du sa jikko te rus naa man di ko siiwal mbaa kenn di ko xam bu fekkee dañ laa indil la loo xam ne kooku yow ki ngay àndal kooku indikatu kaa rek la ne ko ndax day yàq am xel di yàq xol. di dindi di dindi ak bëgg ci doomu aadama ak ku manti doon ndax bu fekkee goro nga gis mbaa njëkkee ñoo ñëpp tàqalikoo nga ak ñoom bu dee borom kër yi tàqalikoo nga ak moom ca la nga gis lañ la toppal ba indi la ko daa am ñoo xam ne sëyu ñu baaruñu ci mbedd yi lañ ne yooyu rek mooy seen liggéey ci la ñuy fayeeku bàyyil ñooñu yow mi nga xam ne sëykat nga bu leen topp mbaa leen di def ay àndandoo teg leen boo déggee li nga xam ne moom la yow bul déglu kaabu kaabu mën nga koo déglu mu yàqal la yow ci sa dund gi nga doon dund ci sa biir kër gi jaxase sa xel mi ak sa xol bi nga jël bëtti nag duutoo wóolu sa boroom kër saa bu ñëwee nga di ko xoolee noonu te mbokki góor ñi am na ci ñoo xam ne ñenn ci ñoom li ñuy luubal nit mënu koo xam waaye am na xale boo xam ne dañoo ñëw nettali ko ne ko yow sa boroom kër saa bu bëccëg jotee day dem añi bi ci deuxième moom dem def si sieste dooga ñëwaat ci bureau bi mu ne leen dinaa ci xam dara waaye man du yéen a ma koy wax duma ko mas indil benn problème te teguma ci sama bët yéen da ngeen a bëgg rek problème yow xaritu diw sama xaritu mànga de mais del wax ak moom moom attan na yooyu man dama attanu loolu c'est la dernière fois nga di ma ko wax man saa bu ma demee ba bëgg koo xam rek dinaa ko xam waaye duma ko accuser ci dara ngir sa wax ji déedéet moom dalul réglewul te du xalaat après na ko kooku daal di ñëw na ko yow sa rakk ji comprendre dugal naa ko ci mbir mi mais nangu te bokk te góor bokk góori léegi yi boo leen yoree da ngay wut ku la ko toppal nee na ma toog ba ab weer jot waaye nee na loolu bu xësee ba tàmb ci sa xel mi en tant que jigéen ak ni mu fiire ci moroomu jigéenam ma ne tey jii nag dinaa xool ba ndax bis biñ ma daa wax ne da cay dem xaaral cravate gi rek la fexe ba xàmmee ko ak ceinture gi moom boroom këram costume lay sol di dem di liggéey mu foto ko bi mu ko solalee ba pare ba defar ko yi ngay ànd ak sa boroom kër yépp macha allah peñe def yépp parfum taxaw ci la koy tiire naan ko chez Sénégal maa fi dàq boroom kër ndekete moo ngi koy jël moo tax xale yi yeewu yi góor gu ko ci am te doo leen bàyyi xel seen portable yi mën naa fay te fekk na def nañ la ñuy def ba pare waaye nag góor gi ne yàlla natt ko ci bis boobu mu dem añi lañ ko doon wax ba mu demee nag soxna si dafa changé cravate bi ak ceinture bi moom it na day won soxna si ne ko kii li mu li ma ko invité lépp te ba léegi gisuma mu am problème gisuma mu am kaabu ñuy séddale tey jii moom dina ko xam bu fekkee soxna la suy seetlu boroom këram mu ñëw nag ñibbisi nag soxna si xool ceinture bi ak cravate bi ñu changé ko mu bàyyi ba boroom kër bi sangu macha allah mu jël cravate moo koy summil nag macha allah loolu moom da koo tàmm xale bu jigéen bu duggisee ci kër gi mooy summi mbubb bu nekk ci kaw rek yor yor tamit saag bi nga xam ne moom la boroom këram di yor ba ci biir kër gi ba ci biir néeg bi mu teg bi mu paree gis na ko waaye dafa tekki bi mu tekkee cravate mu ne ko bee it ma la ko fii mu tekki chaîne fii bi mu ne ko it ma tegal la ko fii ci komatu lal bi daal di wékk yi ci des jël wen gi ñu koy wékki wékk daal di tudd ne ko macha allah kaay nga sangu ñu mu def li muy def macha allah génn sol lu oyofam ñu teg reer mu reer ba suur ñu toog mu koy xellil ataaya dafa bëgg ataaya ñu toog noonu di waxtaan nee na ñun dañuy guddee tëdd sama borom kër lépp àq yëpp dama koy jox nee na ma muñ ko muñ mbokk yi ku ci bàyyiwul yu di topp kaa sa see yàq te ku ma waxoon ne dinaa masa taxaw di wax sama borom kër loolu du ma ko gëm waaye sama fiir gi ma yàlla binde nag jóg na kii li tax ñi jël sama ay di ko séddoo ak moom mu koy jox muy añ te man may jeeg di togg di yekk ci sama kër te du añ ci te saa bu ma ko woowee avant ma koy bàyyi xel woo naa ko ñaari yoon héritage mu ne ma foofu dafa sori du ma mën a ñëw ñëwaat fii may liggéey loolu mënul nekk te loolu duma ko ci defal kenn ndax bu ma leen ko tamalee dangeen koy tàmm te fekk na ma ngi koy def mbokk yi bi mu defee loolu ba pareke nag muy indi nag deuxième bi nag muy naan mu indaale ko nag ne ko waa kii la. gis nga tay sa photo bi do ma laaj num don mel man tay suba bi ngay dem ma ngi la doon photo de mu ko mo ma xol du ne nga ma fi dakh kay yow wax nga lepp xol mu ko waaw sha allah ko mi ngi mu juug ci kaw ne ko wa ceinture gi ak cravate bi ci ban keur nga ko tek ban jigen mo am audience di tekki sa bos ba di ko changer mu ne ko teub mu teub bi na ko changer ku changé lol yow do wax deug man may sa morom mo xam man waye de non ba nit du def duma xam luy lol ak cravate fi muy nekk man mako mom kagn lay tok di tek sama ceinture duma xam Mune pat yow lay waxal mune ko am ceinture bi ak cravate bi mune ko ha mune ko bini tay. tay mom nga fi indi te bi mo nekkon ci photo yi kon yow lañ ma doon wax ci yow def nga ko yow da ngay agni kër diw ci samak ay te yow invité naa la lu dul benn du ñaar te mosoo maa nangoo wis ma gëm say kàddu ndax li nga doon sama kilifa waaye ndeke yaa ngi koy defal sama morom te defaloo ma ko foo ko teg suñ bi daal ne toog ci place bi xamatul lan lay wax kooku bu fekkonte ne bàyyi nañ ko wallaay loolee borom këram di def du dëgg du yoon mbokk yi topp kaa boo ko toppee dina doon dëgg dina doon ay lu dina doon lu dul dëgg mais bu doonee dëgg day am leneen lu nekk ci seen xol bu doonee lu dul dëgg day yàq diggante kon mooy jullit bi wërta dem ci loolu ndax loolu yépp ci ñaaw njort lañ ko teg ak loo xam ne day taqale indi la tamit problème xol mooy li xas ba xol capturé ko fu mu jaar dina ko xool nu mel kon soxna soosu xoolal loolu waaye ku dal la moom soxna si ba mu ko defee dana ko gis nga lii dama lay won ne rek yéeg naa ko dama lay wan ne rek yàlla atte nañu mu leer naññi te kenn waxu ma kenn indiwul ma topp ma leen ndax man taluma ko damay liggéey mais yàlla wan na ma sama yéene ji ma yéene ci ak gëm gi ma la gëm say kàddu ak fi ma la teg ak fi ma gëm ne teg nga ma fa yàlla moo tax mu indi lii kon na la leer ne lépp looy def su ma neexoon xam ko léegi nit ñi dañuy fay di topp seen borom kër yi borom kër yi di fay ay nit ñuy topp seeni soxna suñ tijjee seen buntu kër génn dañuy dem bay fay sax ay moto yoo xam ne fuñ mën di jëm dañ fay taxaw di woo borom kër bi naan ko dugg na barab sàngam kër yaayam la dem tey benn xaritam la seeti dañoo dugg ci oto de am na fu ñu jaar de génn nañ dëkk bi de xool leen googu dund gu metti ndax jullit moom na loolu. loolu mën naa yàq pertiver sa bopp ba yow jaamu yàlla gi nga waroon def duutoo ko man yar sa njaboot gi yaa ngi indi yeneen jikko ci yow te yaa ngi leen koy jàngalaale te doo ko yëg kon mbokki jullit yi liñ ci war a wax dafa bari liñ ci yërëme nag képp koo xam ne yaa ngi ci amoo xel mu tranquille sa xol dalul jikko koy ñaaw rek nga ciy jële doo ci am rendement ndax la nga ñaaw njot ca sa mbokk jullit ndax la nga takk muy bakkaar boo xamante ne xamoo foo koy jële kenn ku nekk nag di ca def defe ne ak mbaax la fekk yàq société bi la bi ñu ko tënkee ba seet ko société bi ñépp yàq nañ genn wàll yépp boo ko xaajoo ñetti xaaj ñaari xaaj yépp topp loolu lu mel noonu mooy yàq seeni mbir yàq seeni xel yàq yar bi yàq société bi te yëguñu ko waaye yëg nañ ne nag kenn ku ne war naa daw loolu yi ba sa diggante ak la nga sumb ci àdduna muy sa carrière bu ko yàq dem bay topp ay wax yu la nit wax ñi di la ko indi sa xol di ca nekk nga dem ba tàppe attaqué nit ki te yooyu yëpp ñoo ñi nga groupe boobu yi yaay ànd ak ñoom mbaa nga xam ca kenn mbaa nga am xarit bu leen xam kon nañu jàngaat ak maandute ak téye suñu bopp ak caractère jullit bi nga xam ne boo ko amee kenn ñi mawulaa nettali bu ñu lay wax dalit boo nee jeex ñëpp noppi loolu nit da koo war a am muy ki nga xam ne bëggut a dégg waaye bu gisee dina faj ci fajin bu ànd ak yar ak i ndax saa boo yayee sa kilifa wala saa boo gisee dëgg mu xam ne lii dëgg la amatul dara lum ci teg nga bàyyi noonu mu sedd wallaay bis bu koy jëf dina la bàyyi xel lool ba duuti def lu mel noonu sax kon loolu mooy faj ba gën a neex bàyyi yàlla àttalaak moom luñ la wax ci nit bu ko gëm te gisoo ko mbaa nga teg ci sa bët bul bok ci ñuy top ka day tax sa xol di top lu mu xamul lu mu doon resal sa kër res sa bop res sa njabot res sa participation ci société bi res sa borom kër mo xam dëng naag dëngul ma nga am nekku ca man yoy yep du sama mbir ndax yow lañ koy bindal di nekk ci sawab kay rek ëllëg ni dima ko jox dima ci atté man lool lay setal kon mbokk yi li buñu ko topé man nañ ci wax lu bari ku dugg man nga ci wax bu bari ci benen anam sax yo xamne man waaye yi nga xam ne jot nañ ko fee laal lépp lu ci baax rek ñu santee ko boroom bi waaye lu ciy njuumte ngeen teg ko ñàkk xam ak di jéemu macha allah néew ca doole lool comme ñuy moroom ndax lañu ñu cay xam ñun xam nañ ni ñuy wax bu baax ne mi ngi ci biir société bi waaye nag ñu dellu arrière xam na ki doon wax lu ciy njuumte rek nañ ko ko jéggal ñu dellu arrière vérifié waat fi ñuy teg suñu tànk ndax xamuñu kañ la yàlla na yeex waaye yal nañu yàlla sàmm te may ñu xel mu dal ak xol bu féex fees del la gëm yàlla te ñu ragal suñu borom subhanahu wa taala ci fuñ mën di nekk ndax ñàkk ragal borom bi dina waral nga dugg ci boobu group asalaamaaleykum wa rahmatullah wa